man daal ni ngay toogee neex na ma aaw buuru kërëm gis nga rek Allah ah ñu ci koor de ah fël-fëlaale tël-tëlaale dañ koy teg nii bàyyi ba koor gi jaar ñu soog a tël-tëlaale la yaay kërëm juddu kenn bon bu la kenn wax ne bëgguma bég naa lool si yow waaye am na koo xam ne ya, jéggal de waaye kooram daal jar day lalu di lalu di lalu di lalu di lalu di lalu kaña sax law na nag kaña par guddi dina génn sax di faratu lu muy fa xanaa buñ ko reyee mu dee deewu kaña sax moo gën waaye koo xamante ni comme assez puissance puissance daa la wax néeg bi de du ko génn moom daal daa bëgg néeg bëgg néeg bëgg balaa maa dee ñu naan dañuy bind livre livre bu ñu mës a bind de ku ko liir mooy faatu nga fa yàlla jëkkër ji ànd ci biir ñu lëlu rek lëlu rek lëlu rek yàlla daa am lu mu wax si weeru koor yàlla nee weeru koor mayul sax jëkkër ak jabar ñuy laalante bay teggu loxo tànk ndogu amul waaye ñoom amul ndogu amul dara ñoom xam naa xëdd sax nii la ñuy def nii la ñuy xëddee. ngeen indoo gindoo ko nii tax ngeen indoo ba ay. ñëw bi moom kii njugub la bu ñu wax ak moom ndax buddi lay génn. maman kii yabaate na de. gis nga kii ah, déggoo ma de yow kii yow temps de repis borom lam bu dof bi ku ma xamul dégg nga ma sama loxo daal des ba fu ma wéeru laay fi gone gu ma mës a xët dee nga fa yàllaam waaye yow nag yow lay waxal lijjanti loolu kii nag daf laa yab nanga ko lijjanti yaay aaw buuru këram ni ko juddu ni ko baax tax dawoo kenn bonam dëgg du neex yi dama ko nawloo de mu mel ne tubaabu benn xam nga man genre yi dama wax ak ñoom nag di wàcc sama personnalité yow daal teg leen sa xoolal jugal def li la war. xale bi sa fi bàjjanam ndax nuroo papa. dégg nga lii waaye kii ma rajo ko fi say. waaye ma ma ma ma waxal la leen. yéen a ngi bëgg a yàgg di jënd yéen a ngi bëgg a yàgg di joxante loxo. ka jaayee wax ji day jeex. man xoolal benn xale du ma du ma mbay mu jeex. sama digg bopp bi ma tënk tënk wax li la mos a def kañ la. wax ji na doy dégg nga man damaa. waaye lii la yegg wallaahi yow man laa faale. waaye lii la la di yegg. kii faale wu ma. nag bu leen ma gaaw lii daal nii lañ fi nekkee woon boo leen liggéeyee duñ may waa koñ bi jàmm suba ba tey ngat ngat ngat ngat xamu ni lan la lan la li xew moom mii ak maman ñoo toog fi jàkkaarloo buntu néegu puissance bii naan puissance ak si biir néeg bi ak jëkkëram di def lu ko neex ci weeru koor bi suba ba léegi loolu la ma ngi am droit ni may songee soir petit papa man mii waxuma ak yow ah doom man ne dama say am droit nag sama jëkkër la sama jëkkër nga xam ne daa liggéeyoon uti buñu def bii yow nga toog di wax yow ni nga mel war nga ko xoolaat yow moom la. yow war nga ko di ñëw yow. loolu la ko alaal day xoolal. yow yaay ñàkk jom yow weer koor yàlla lan la ci wax. yow yaay topp maman yow ci waxam ji ah man maman yow xaw ma jinne nga xaw ma rab nga xaw ma dëmm nga xaw ma loo doon. kii xaw ma fan la ñu toppee ci famille bi maman. maman xanaa nag looy mën di fen di fen di fen ba weeru koor jot maman premier jour weeru koor nit ñi di ñaan yàlla yàlla jéggal suñuy bàkkaar maman nga bëgg ñoo rey ak ay fen bëgg a tas kër gi maman yow ni la ñuy dëkkee yow. maman maman yow da nga fàtte tey la premier jour si weeru koor gi xanaa maman nit ki si wooree say bët day woor sa làmmiñ woor say loxo woor sa cër yëppay woor maman. sama tuñ yi waw na de. waxuma la loolu lépp maman fan nga nekkee ak jaxase yi nga nekkee ci réew mi lii dang ko don walal la mama do bay si ngay def mama yow gis nga li nag xam nga lan mo la ci fek ay djuma yo xamoo buur saay na buur dee na nga xam waaw baax na. mama te ñu dimbali ngir yalla sonu nan ñu ngi ni doga wacc wara ñew ndog nga indil ñu fi coow lu jeex mama te nga yërëm sa derbi no man ki ki ki ki ki kii. këramam gii muy mel ni béy mi ko war a génne kër gi ma. aywa bu leen ma génne kër gi aywa dimbali leen.